Euh, ak li nga xamante ni moom mooy mbiru sëriñ donc fii ci euh, Sénégal donc mu nekk aussi loo xamante ni très du ñoo lay nekk pour ñu permettre ñu attaquer suñu troisième cas bi nga xamante ni Kounkandé donc euh, jamono ji ñuy wax ak yéen mu ngi garde à vue foofu la ca diwaan bu cees li ko sabab nag ci mbiru escroquerie ak charlatanisme ab sénégalais bu nekk États-Unis moom moo leen porté plainte bi ñu leen porté plainte nag brigade de recherche bu Thiès donc teg leen loxo je que foofu la ca la la ñu ko tegee loxo actuellement mu ngi diwaanu Thiès donc ñu teew ko garde à vue ci escroquerie bi ñu ko laajee aussi bi ñu defee ay enquête nee na ci mbiru xaalis la bu toll ci 7 million boo xamante ni kii di wuyoo ci turu sant yàlla bi ñu ko laajee def ni 7 million yooyu lay def ko joxoon kunkande ndax kunkande dañu ko woon 7 millions yooyu la mën na ko soppi def ko 700 millions donc loolu ne <laughs> euh, nag moo indi euh, li nga xamante ni mooy coow li donc ba foofu daal mbir ma daal di teeree foofu lay section bu recherche bu Thiès ba ñu tee leen euh, garde à vue donc loolu aussi yaay dañ ciy waxtaan bu baax a baax ci sëriñ si ak naxaate yi ak jox ma xaalis ma defal la ko jox ma 7 millions ma defal la ko 700 millions mm. ay mbiru jinne damay luxus xaalis bari ci Sénégal surtout aussi ñu nekk à l'étranger mm. euh, diaspora bi sénégalais yu nekk yu nekk foofu dañ leen di dóor bu baax a baax ci mbiru sëriñ bi boobu tamit bëgg naa a ne mm-hmm. ndax man yaakaar naa ne li direct la direct la on est en direct mm-hmm. Sénégal yëpp a ngi seetaan ak waa diaspora lii daal li mu bëgg mm-hmm. mooy na tax na sax ba dàkk Mm-hmm. olofu léb rek des fois day tax comprendre <laughs> baax na ñu ngi bu baax mais na sax bu mm-hmm. baax parce que lu tax ma ne na sax mm-hmm. même bu dee seet bi sax juróomi dërëm la xaalis yombul am ami ami xaalis dafa sax ci xol am na sëriñ yi nga xam ne am na xale yi nga xam ne da leen di jaral ñu xañ seen nday dem jox sëriñ dañuy jaay seen bopp pour jox sëriñ jaay sa téléphone jox sëriñ war dund xañ ko jox ko sëriñ yow léegi sëriñ bi nga toog di ci naxaate di ci fay say appartement di ci def mm-hmm. loolu na jeex man ci laay liggéey mais dama koy ñaan ci barki sëñ Babacar si mm-hmm. képp ku defati lii nañ la def nii tëj la mm-hmm. te xanaa yow émission yi yëpp nañ leen invité di def direct képp ku wane am sa xam-xam nañ la woon preuve ku ko deful mu téye la. ah moom kay. léegi na xaar bi nag boppam parce que euh, man <laughs> koy nuyu fa mu nekk. Mm-hmm. mës na ma woo ñu nuyante. mu bëggoon ñëw sama kër yàlla dafa ma am mm-hmm. ndax man ñëpp xam nañ ne soxna bu dafa yambar dafa dal man bëgguma lu ànd ak <laughs> coow. waaw lu ànd ak wax moo tax du ma am xarit sama yaay mooy sama xarit. Mm-hmm. man aw ma xarit. moo tax du ma bëgg a dugalante. mës na mës na ma woo. ba bëggoon ñëw sama kër joxanteeg man rendez-vous après man maa ko faussé parce que dama amoon rendez-vous hmm. yaa ngi comprendre. ci lan la wax na la lu la doon. non daf ma wax ne ma gis naa sa video ku baax nga macha allah vidéo bi intéressé na ma. Hmm. waxee ko ton boobu daal wax dëgg neex yàlla. Hmm. ma ne ko ah macha allah yow ku baax nga de gis ma nii rek intéressé wu ci samay vidéo mu wax ma ko. mu ne ma dinaa mu ne ma dama fa bëggoon ñëw ma ne ko mardi nga ñëw. foofu yàlla mardi bi ma jàpp ma vocal ko ne man dama am empêchement bul ñëw. mu ne ma amul benn problème ci la ñu gëj a déggante des fois dama daan gis STM ma commenté ci. ndax ñun ñëpp benn lañu. bien waaw mais waxuma pour moom kase wala pour yàqal ko. Mhm. ba ci man soxna Seynabou. bañ mhm. naa ko ba bu may liggéey ci euh, WhatsApp laay liggéeyee mhm. vocal laay def. pour ndaxte vocal dafay am trace. Mhm. te man du ma mës dindi comme def ay message éphémère non day resté. mais mbiru jokkalante xaalis bi diggante sëriñ ak euh, kiy seetlu wala taalibe. Mhm. Euh, nan la war a demee parce que da ngay. dégg waaw rek xam nga tey jii Wave day am trace. man ku taxaw ne soxna na bu jox na ma xaalis lu dul ci Wave wala ci Orange ne waxoo dëgg. non au delà pas traçabilité bi mais. Mhm. tey nit bu la laajee xaalis xaalis boobu noonu. lan la mhm. ci payoor bi la wala xaalis boobu. noonu waaw parce que pour euh, la mhm. wala parce que dañ ciy dégg généralement xaalis yu bari. man soxna Seynabou ñi may may ñëpp ñu may fayeeku. dëgg la. waaw ñi may may ñu ëpp ñu may fayeeku. benn ngi nii dëgg la. <laughs> <laughs> dëgg la na ko. dëgg la yàlla damay wax te yàlla rek dëgg la. parce que nit ki dañ ne même ci lekk gi ngay lekk ci ngay jaamu yàlla. ci lekk gi ngay lekk mhm. des fois war nga am xel boo lekkee mu tuuru nga for ci tuuti ñam mhm. te xam na yow ko sa toogoo ci bool bi mhm. seet bi rek nit dalay laaj ndax des fois di nga di nga seetal nit ki gis ko mu am yére bu oyof fekk la mu àndal yow àndoog moom dëgg la fekk li nekk ci moom yow mi toog di woote sëriñ nekkul ci yow nga may ko mu jóg rek sa àdduna yëpp yàqu ndax am na lu mu àndal loolu mooy waral laaj bi mais laaj bi dafa war a ànd ak yoon laaj bi dafa war a ànd ak yoon su ma ne laa laay seetee nga dugal ko ci web bi ba naa ma koy jël dinaa ne ndax gis naa la te képp ku may seetaan waxta yàlla rek tax dina leeral li su ma la liggéeyalee su génnee par euh, euh, kii traitement dinaa ne la traitement la génnee te man amul ma lay liggéeyal nga gis wala nga ñàkk gis ma taxaw di lay leneen sinon rek ku ci am preuve na ko génne mhm. dëggu ndax man chaque fois ci samay vidéo dama naan tooguma ba màgg dem di wëri ji dàll dama fekk dàll ci sama kër nday mhm. sama kër baay mhm. ñu yar ñu rek bu baax mais li ñu def nii baax na trop kontaan naa ci sept millions euh, sénégalais dañu koy ci mbiru sëriñ lu <laughs> koo xamante ne ni ki ko mhm. arnaqué arnaqué na ko plus de ay quatre-vingts millions waaw am na ci mbiru ni comme si da koo takk di la laaj ngay jox di la laaj jox lu mu la laaj ngay jox di la laaj ngay jox ba sa xaas bu ne pëkk nit ñu ñoo war a yeewu yow lu la yàlla mayul mhm. yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mayu ko say ndey ak sa baay ñaanalu la ko mhm. dëgg la sëriñ am na mhm. ndax ku mel ne man da ngay toog doon lu may ma lay seetal di la tuddal ba di la wax li nga lekk kon sëriñ am na mais man mii ñuy ñëw ci man du ma faat waxtu te banaa may def dara sama yaay daf may ñaana ba may ñëw fii daf maa jox euh, ak waram ne ma demal nit rek ah, soo xoolee tey ci sunu kii bi am na ñi nga xam ni oto bi may dawal am na ñu ko gën a cher. Mhm. kër gi ma nekk am na maa am na parce que naxaate bi la. Mhm. mais man dama nekk ku digne. nekk doomu lébu ak doomu pël mhm. bugguma ku ma naari mukk mhm. ci àdduna mhm. mbir la moo xamante ne euh, doy na waar donc kaso moom kenn yéenewu ko kenn kenn mais je pense que aussi tamit ak sénégalais surtout yu nekk euh, bitim réew yaay booy nga xam euh, liggéey am sa xaalis aussi ñu teg la dil wala escroquerie je pense que ni mbir la moo xamante ne mbir mu doy waar la donc voilà ñu ngi xool toppal leen mbir moom la lu ci am rek donc dañ koy indiwaat ci table ji waxtaanee ko comme cas koy defee 21 heures mais on rappelle ki nga xamante ni donc moom mooy Kounkandé jamono ji mu ngi garde à vue foofu lay ca diwaanu Thiès ci euh, donc voilà ci mbiru xaalis 7 millions mu def ko 700 millions mbiru luxus mais courtage dafa courtage dégg naa gis ñoo xamante ne woote wooteelu sëriñ dëgg la wala woote wooteelu seetkat fekk dañoo xam benn soxna seen bu ci côté bi di encaisser nit ñi mhm. Euh, mhm. après woo soxna seen bu ndànk ci suuf kooku mhm. jox leen ay man damay Euh, da ngay xamanteeg man woo ma comme nii première jour bi ngeen ma invité fii. Mhm. am na ci ñu bari ñu ma woo ñoo xam ne comme ni ma seetalee Adjumas. Mhm, mhm. mu bëgg ma woo commencé loolu defal naa ko ko sept fois yoo xam ne gratuite la. Hmm. waxuma pour weer nit du ma wax pour weer nit parce que loolu du suñu yëf. mais en direct laay waxee maa xëy arrêté ko. Hmm. man maa xëy ne ko bul ma woote pour affaire u seet yii dama la ko may. mais loo mënul tegal ci suuf. Hmm. loo mënul tegal ci suuf. Mhm. te bu ma daan wax ak moom vocal laay wax ak moom. Mhm. waaw. Mhm. mais am na. ndax tey kii nga xam ne jël na set million joxe ko te gis match bi yàggul dara ak liñ fi wax yépp xam nga ne dañuy am sëriñ foo xam ne ni du nekk ci senegal wala du nekk ndakaar dëgg la dañuy defaru buñ la waxee dangay déglu mais gis nga lu dul yàlla. wallaahi neen la te du yàgg. lu dul dëgg rek du yàgg. lu dul dëgg du yàgg. waaw la macha allah ama ku ne ma naa la ko laajal euh, combat bi. Euh, ba euh, de ak <laughs> Boy <laughs> pour vous dire que sénégalais <laughs> voilà moom loolu la bëgg daal nee nga wax loolu la bëgg a wax waaw dama ne woon de. ba di ba ñuy mujjee ñëw foofu dafa mel ne ma jaw moo fa ñëwoon. ma uh-huh. maa ngi doon wax ne bu fekkee ne combat bi dëppuñu ko. Uh-huh. yàlla tàccu na Balla. yàlla tàcc waaw mais comme man ak li may liggéey ndax damay seetaan ci YouTube bi affaire match bi pourtant am na ñaari sëriñ yi nga xam ne mhm. lu ñu waxoon ci match bi dëgg la mais dafa am ñi nga xam ne dëpp rek moo leen tax a jóg dëgg la comme tey ma toog de loin gis Ami Collé mii xam ne kii dafa war a dem mhm. te man mën naa def tuuba Ami du dem mhm. ndax bu demee du ma arrangé te bu demee yaayam tekki dafa may jaral ma teg ci sama tànk mais buñ ko dëppul en direct laay waxee dina am lu mu bëgg moom Balla Gaye. Balla Gaye day daan waaw bu dee dëppuñu ko. dee dëppuñu ko. mais buñ ko dëppee bu ñu ko dëppee ci suuf la jëm donc fans Balla Gaye yi seetaan donc ñu doon laajte combat bi dégg maa wax loolu man soxna Seynabou bu ñu ko dëppee. Hmm. daanu bu rëy lay daanu mais rek bu dee dëppuñu ko yàlla tàccuñu ko. moom mais li nga léegi dañ koy dem wax Boy Niang Boy Niang tamit dem wuti sëriñ. non non non pare na. Balla pare na mais li ma mën a gis. Hmm. yow seetal naa la xam nga li ma la wax. dëpp day am dafay am waaw. Mm-hmm. da ngay gis nit di am dara waa mu ngi noonu bu paree rek comme kee ni mu paree dina am lu mu bëgg dina am lu mu bëgg mhm. donc macha allah en tout cas mbégte la à chaque fois bokk ak yow plateau bi parce que aussi sénégalais yi ci ñoo xamante ni euh, dañu la sopp non seulement sa liggéey comme ni ma ko waxee sànq da nga ko mën mais euh, ci aussi euh, discipline bi ak dal bi tey bi mais aussi ak tout le temps wax bi nitu oh, dëgg la lay wax yonent bi la lay wax Serigne Babacar la lay wax ak fonkal sa mhm. ay waajur mu mhm. nekk mbir moo xamante ne mbir moo am solo la comme point yi nga xamante ne dañ ko doon def ramassage rek ci cas bu mm-hmm. bees euh, yaay booy mais tey da nga kii de da nga ñëw rek tey jàpp sa ñaar <laughs> waaye <laughs> bàyyi leen sama yaay ji ngeen dëkkee di ko wax. Eh, bu toogee plateau léegi di sedd. <laughs> non pourtant nag bizarrement commentaire yi macha allah nag wax dëgg yàlla man nee la sénégalais dañ mhm. ma am rek mooy sénégalais dañ maa bëgg. Mhm. Euh, congaan bu ma koy wax daf ma naan. tu fais mhm. partie des artistes yi nga xamante ne heure bu ma la invité commentaire bu nekkoon 1000 commentaires wala mu nekk 2000 commentaires teewul ñëpp côté positif la ñuy nekk. négatif nag parfois du ci ñàkk. ndax moo àdduna ñoo ànd mënoo bokk rek ni ñëpp dañ ne gongo mais xam naa ne sénégalais yi bëgg ñoo ëpp ñu ma bañ mhm. bu dee am naa sax ku ma bañ mhm. bëriwul daal mhm. waaw merci beaucoup bëriwul man de jàpp naa ko ci benn ton ndax dama nekk ki nga xam ne ci ay wax lay jàppee nit ndax am na ñi nga xam ne euh, ragal nit wala euh, wala bëgg lu neex nit dina tax ñu lay maral sa xottaan dafa ñëw sama kër daal di toog ne ma am na dañu ma woo ne ma dañoo bëgg pour yow nga seetal leen mais xamal naa leen ne musuma ras musuma seetal seetal na rek Adji Mass en direct ma gis. Mhm. Mhm. parole boobu tax na ma jàpp ko. Mhm. ndeysaan ndax nit da ngay ñeme dëgg. ndeysaan tey bëggoon émission am neex mënoon na ne seetal na ma mën na tax xamul lu muy wax. xam ko ba ma ñëwee mu seetal ma gis ma. dama delluwaat ñooñu ne leen dem leen loolu parce que nit dàq koo seet barke Cheikhul Xadim te la laay waxee mhm. billaahi wallaahi wa gisuma ku ko dàq seet bopp man sama jëmm ji gisuma soxna seeni bu mii ku ko dàq seet mhm. te seetal ma yombul dëgg la moo tax léeg-léeg nit yóbbu ma ci sëriñ sa pare ne ma mën na ma ne ko ah mënul mhm. day am pourtant mën na am sa ne kooku mën na ndax ku nekk ak li la jublu ku nekk daal xam nga sa bopp mais kii daal en tout cas fa tubaar fa macha allah jàpp naa ko ci lenn danaan tele laay waxee. Mhm. dugg leen te tele dañuy dugg. Mhm. nga def loo xam ne gisoo leen ñu ne la gisuñu dara. Sénégalais yi dara waaw. yar bareetu fi. Mhm. nga liggéeyal leen gisuñu ñun la gisuñu nga sang leen gisuñu ñun la gisuñu waaw mais danaan carrément ku sang te gisoo ñëwal mm-hmm. ma delloo la sa xaalis wallaay ku ma gisoo ñëwal ma delloo la sa xaalis kon nag wax dëgg yàlla nañu wax dëgg nag manaari manaari manaari yaa <laughs> amoon na solo loolu sax mm-hmm. waxtaan bi lay xam naa ni que ni euh, mën nañ ko topp guddi gi yëpp di ci waxtaanee donc parce chaque fois mbégte lay doon ndax comme ni ma ko waxee suñu yaay nga suñu xarit nga mm-hmm. euh, voilà ñu bàyyi rek euh, ci ay kàddu yoo xamante ni bëggoon nga ko dénk sénégalais rappelé waat aussi ñi seetaan numéro de téléphone bi presse waaw li may wax rek mooy ñu delluwaat seen xel maytu ñu leen di nax. Mhm. xaalis nekk lu yomb. Mhm. may ñaanal Kounkandé yàlla na yàlla teggi loxoom fañ ko teg. Mhm. te yàlla raxasaat ko ba mu normal ndax te kenn yàlla bindul dara lu bon. dañu bàyyi escroquer beeg <laughs> mu ngi noonu leneen li mooy ci sama wàllum seet. Euh, soxna Seyna bu vingt 24 seet lay seet ci wàllum lépp lay seetee comme ni ma ko fi waxee woon. di ñaanal da ngay gis wala ma delloo la sa ñaan. Mhm. sama numéro téléphone 78 122 07 97. jàpp leen numéro bi. macha allah adresse adresse bi. <laughs> Pikine laay liggéeyee. Pikine lay liggéeyee. donc soxna Seynabou donc moo nekk noonu vraiment kontaan nañu bu baax a baax a baax. la ñaanal yàlla gën la dëgëral. amiin amiin euh, ah, mm. euh, <laughs> naa bu baax a baax a baax cas bu bees 2022 bi xam naa ni que ni fi waxtaanee ci ay cas bari euh, bu ñu ñëwaatee insha donc dañuy defaat benn round up de lépp loo xamante ni cas rek ci bi doon nañu ko waxtaanee tout en espérant que 2023 certes ay cas dina am mais mu nekk ay cas bànneex ay cas yoo xamante ni mbégte lay doon vraiment mais bëgguñu di dégg daal ay cas yoo xamante ne ay meurtre rek ay cas yu doy waar yooyu donc voilà bëgg na daal euh, mu des ci 2022 bi 2023 lépp nekk mbégte kontaanoon na allahuma amin suñu borom da koy def di baalu ñëpp encore une fois bu dee ci cas bees bi ñu traité ci 2022 Mm-hmm. mës nañ ci wax nit dara loo xam lu ko touché rek nañu koy jéggalu di ko baalu àq bu baax a baax a baax ñu mm-hmm. wax ni lépp luñ fi wax rek pour defar la ñun mm-hmm. waxuñu pour yàq defar kese mooñ tax a jóg donc ñu ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla at mu bees mi ñuy dugg yal na doon atum ngëneel yal na doon atum naataange yal na doon at moo xam day sedd guy guy guy guy guy te suñ borom defal ñëpp xéewal defal ñu teraanga àdduna ak àllaaxira yàlla musal ñu muccal ñu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te day am sa incha allahu rabbi waaye dafa am xew-xew boo xam dafa am am sama doom koo xam ne doom la ci man damaa bëri ay doom. bëri ay doom. Mhm. <laughs> di naas sama doom <laughs> sama doom dëkk fële ca Touba jabaram di def anniversaire ma di ko mhm. souhaiter un joyeux anniversaire à ma sama goro boobu di ko wax ni ko happy birthday to you mhm. li nga bëgg sa biir xol yaa ko xam yal la ko yàlla defal sama goro la waaye di def spécial tànd biir dafa am fële ca Ouest-Foire xam nga ne nit ku nekk fa nga dëkk dafa xewoon ouest te terrain basket ba dafa am tànd biir séeree fa organiser tànd ko avec le groupe may neex mm-hmm. te ci terrain basket ba jeudi incha allah vingt heures le 12 janvier na ko ñëpp préparé incha allah fële ca terrain bu yoof mm-hmm. na xam nga rek ñun ñun ñun waawee sufaar côté yoof du ñu bëgg ay programme ñun ci ay programme rek la ñuy dox <laughs> ngi noonu kon xam naa ba samedi prochain incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam sopp nañ leen bëgg nañ leen yàlla suñu borom bi samedi prochain eh samedi prochain arrêté leen de moo dama ko fàtte woon <laughs> en tout cas ça a été un plaisir ami internaute de Sénégal 7 c'était votre émission Taamu Net merci beaucoup à tuuti moom moo nekkoon ci régie merci beaucoup à toute l'équipe de Sénégal 7 donc rendez-vous incha allah prochain numéro bu kaa bu bees ñu ak jàmm.